papa damay liggéey papa. li papa man dafa ay jeunes yu bëri yoo xam ne ñoo ngi si mbedd yi man la ma wax. pour ñoom ñu jëriñoo ko. ma war a wax ñi nga xamante ne dañu war a wax te mënuñu wax. ñoom ñu lay dugg ci loolu rabal kenn terewul ko rabal. mais booy rab waxal lu jaar yoon waxal lu doomu aadama yi mën a dégg rabal kën fël defal lu la neex mais na wax ji tegu ci yoon. mais gis nañ ñun ay citoyen lañu. te bu ñu gisee loo xamante ni ci suñu dëkk bii la nekk ñu gis que sérieusement lii nii du yoon ñun dañ ciy bind ñu wax ci. yow ana sa xanaa dafa la ay citoyen dañ lay déglu yow dañu lay déglu. eh li nga war a wax ak nii ana laa wër jàppal waaye rabal laa wër waxam nañ maa ngi koo déglu la ah ara ñuy tonk ñuy wër di tonkaani fóotkat yi rab leen nga situation politique bi nekk sama dëkk man waruma ci wax. mais bul tooñ nit du tooñ. non ndeyawee non non non non bëgguma ragal. li nga bind d'accord ma ci d'accord ma ci de laaj bi tey damaa bëgg ñu dëglante nañ dem affronté policiers yi lan mooy lacrymogène da ngeen a ragal te ñoom ñu koy supporté ñoom ñu ay nit ñu ñun ay nit. waa France na kontaan naa ci yéen parce que yéen ni ngeen doxalee neex na ma gis naa vidéo yëpp maa ngi leen di nuyu de passage eh, eh, eh, Yirma Ndiaye waaw yow moom yow moom vraiment États-Unis yaa ngi koy wàcce bu baax a baax Ndiaye jaata kontaan naa ci yow. sama gars yi xoolal may ma ma léegi ngeen ñëw maa ngi si live am looy wax rek jàllale ko message ok. mais yow moo tax ngay ñëw te ubbi pour la man damay bëgg jom wala àddunaay waaj a tukki wala lii lan la lan doon wax naa ñu ma ma taal réew ma nag sore woon bopp koñ ba xam nga lu ma lay xamal nu menjaa yow nit ku baax nga yow yaa ngi ay assez de valeur nit nga koo xam ne dañ la yaru-yar bu baax éduqué toppatoo la gis nga nag borom kaat kaat yi ñuul yi borom costume yi ñuul yi boo leen toppee ak seen mer ba tax na ñu lay loo ci internet bi di la vidéoloo di la defloo ay live direct nga wane sa bopp exposé sa bopp te dama lay wax danger bi ci ne mooy internet lépp loo ci wax ma ngi ca biir ca source dootu fa jóge ëllëg na nga yor say njaboot say njaboot màgg l'histoire retiendra ñu ne sama yaay moo doon def live direct di saaga nit ñi di wax nit ñi lu bon di def lu nit ñi bon loolu jara jaru ko ci sa àdduna réew mi nga am réew mii fi nga juddoo fi nga yaroo fi nga màgge te xam nga ni ñun ñii di sa baay bu nu yàqoon réew mi wala ñu waxante ci réew mi lu bon doo fi màgg tey ba fekkee connexion fekkee téléphone di wax kenn lu bon li may séqal nag yow mooy réew mi ay loi moo boole constitution la nu am am président de la garde de la constitution moom bu deful am na ñu fi teg ñuy régler yi nga xam ni mooy injustice dama lay wax na loi bi jëkk ci loi yi déformation de confirmation yow da ngay défirmer ba pare ñu ni dénn waaye nga taxaw confirmer loolu nag ressources garde les données mobiles fi du nu wax ki koy wax fu mu ne du ma nangu waa réew mi di la wër naan fii nga ne te newoo fii maay dem ba ca gendarmerie kalaame la def sama plainte avisé ni yaa ngi ci kër gi. tonton damaa bàyyi li xaw ma ko woon man dañ maa ubbil Facebook sax jox ma ko man xam nga xam jàngu ma yow xam nga sama jàngu soriwul xaw ma si Facebook dara. du ma fi nangu nag ngay yàq deru kenn ci réew mi. élection yi képp ku ko nar a yàq wala nga nar a def luy indi problème ci réew mi dina la dénonce. temps yii maa la bëggoon a kepp bàyyi am benn affaire bu ñu lënk man ak yow. dëgg daa am benn ponkal bu ma dóor ay coup de génneel ma benn xaalis sama xaalis bu dëgër. moo eh. xam ne dama ko war a mën a jiit si élection yi xam mhm. nga rek ma bëgg am na am naa benn mafia boo xam ne dama bëgg nga récupérer ma ay quelques mafia booy. Mhm. comprendre nga pour ma ñëw séquence ñëw taal pono mhm. na town bi tàkk ñun suñu yoon newul si town bi. den taw non moo arrête yow quoi man defoon naa ne yow lu nekk nga may expliquer quoi nga may wax ay selteel ay benn mafia ay selteel benn gaañ moom benn ku munti doon man concerné wu ma man. nekkuma ci ay saccagé ak ay taal ay pono ay yàq ay ruube ay yooyu non non parce que man dépassé na parce que yow ñi lay def loolu noonu ah seeni doom ñi ngi ci kaaw bi toog xam nga li ñu nekk ci bon condition yow nag fii Sénégal dañuy ñëw toog fekk nit benn gentleman bi dóor waaram ñu bëgg la ko yàqal nga taluma loolu sax naan ay maa ngi saccagé ay noo defoon naa ne lu nekk nga may dee quoi xam nga non ban jiis jiis damay jiis na mën nga ko amee ci noo xamante ne moo génnal ci loolu pour man sa projet bi nga tegal noon sax si nga nekk nii naan ay ay. dëgg naa la dëgg naa la yow. ana sa fulla ana sa ngor nit day xam ki mu doon may boo yow ku la naw loola non kii naa doom loo tey laa la tey laa la gën a dugal sama biir xol. ban jàmbur yàlla moo war a jóge fee ca àll ba la tàlloo ay puno ak di la yàquloo ay contribuable li réew mi am as tuut boo ci yokkul nga la ngir yàlla bul ko yàq li la sa maam yi liggéeyal boobaa gi léegi ci jom ci fulaak ci fayda sàmm ko ñaata école privée laa la dugal nga ni doo jàng ñu dàq la indi la ci kër nga toog teg caayin mat laa bu nooy bu courant jotee bu wëru fay jotee ma fay bu wëru ndox jotee ma fay waaye nga toog fi nga toog ma toog dégg la nga ay dangay tàmpul amal jom xalaatal sa avenir bu saaga say doom ëllëg seen bàyyi di ne Morane Tall pour ak di yàq ka kaaru bi xanaa war nga rus boobu ñuy fay seen impôt seen ay taxes gor yi yow 6 heures du matin di tëdd 9 heures rusal ñooñu. man na euh, sécurité publique bi moo ma gënal lu ma am maa la jur dama lay dénoncer waa GIGN foofu boo fa yeggee ba ñu simi sa tubéy jàpp lépp loo xam ni karaw la ci yow di ko buddi benn par benn dina la laaj yow ban xel moo la dikkal ba nga war a taal réew mi di nga xam ni bandi jege woon ñuy ban ñee dañ leen di fay pour ñuy dóor yow fayagul la pour ngay dóor ñee salaire la am dina lu dóor ba nga correct booy jàppale ton père